met lu ñu dem te waxu nag sa diggante ak président Macky Sall. waaw parce que gis nañ nga def ay vidéo vraiment di ko di parce que comme li wax rek ku def lu baax. da nga koy féliciter. mais mais état continuité la te moom daa yaru. Mhm. xam nga man du ma bàyyi ba kenn moom mooy Youssou Ndour gi nii la di ko way. Mhm. la mooy problème bi avant Macky Sall Youssou Ndour Macky Sall Macky la doon Macky Sall Youssou la doon seetaan. Mhm. di ko baal yàgg na. voilà di ko baal yàgg na. am koy baal xamul woon ni. day nekk président. mais ñoom président boo xam ne opposition yi nag bu fii état la. état la état continuité la ñun nekk ñu fi di ŋàññi benn. benn état mais dëgg dinañ ko wax. Mm-hmm. mais dafa liggéey. Mm-hmm. ba pare di sama xarit. preuve ndeysaan Amadou. Amadou yaru Amadou Sall ndeysaan yaru la. Marème Faye Sall doon nit ku baax. Mm-hmm. ndeysaan wallaay doo ko dégg ci lenn. Ah, doo ko dégg ci dara président Macky fi mu teg affaire bi foofu la. mi ngi job ba pare liggéey lu bari wax tuuti. merci foofu laa ah. bëggoon wax. waaw man dama ko amee njukkal ndax dama ko woy ci sama album bi passé. ndeysaan ama président. waaw léegi nag ma war koo woyaat ndax dafa am lu mu def. Uh-huh. teer yi mu teg. waaw stade bi stade bi ak yeneen ma war koo dellu njukkal ba pare nag jigéen wunu te 40 ans. waaw ñu ngi wut stade bi amuñu ko. mais ba pare jigéen 32 ans ñu ngi wut coupe bi amuñu ko. jigéen wunu dafa ñëw Sénégal demaat final. Uh-huh. ñu ne déetawaay mu mu ñaaxaat booy booy indi coupe bi. dëgg kon jigéen jigéen te damaa am lu ma jëfle lu ma war a waxanteeg lion yi. Mhm. ndax man bokkoon naa ci doon ŋàññi lion yi. dëgg la indi leen fi coupe. indi leen fi coupe dëgg la di leen yokk jom boo leen fi indee coupe nag daa leen woy. dëgg la indi leen coupe nag daa leen woy. moo tax première sargal bi ma dem ba Genève. ndeysaan Genève. Suisse woo jigéenu Suisse xam nga xale yi Suisse yi. la kañ la. le 26 mars le 26 mars. danoo am ay valeur. ndeysaan jigéen Suisse. waaw Suisse. xale yi sénégalais ya fa ne. Mm-hmm. am nañ personnalité. ndeysaan yaru nan bëgg nañ liggéey mën nañ sañse. Mm-hmm. leen rek mooy seen problème. Mm-hmm. dañ dul génn lu bari. ndeysaan te comme que dëkk bi monde entier bi dañ leen koy bàkkante naan danoo soof ak yooyu. xam naa leen sama jabar fa la ne soofuñu de. soofuñu dañoo bëgg liggéey. foofu sa kër la mais nag comme que monde bi yëpp feete nan. victoire lion yi. ndeysaan il faut ngeen génn feete ko nag. parce que boo leen ko feetewul dañ naan doo leen ay sénégalais. dëgg la te daraay xolu iñaan nekkul ci ñoom moo tax ma bëgg. Hmm. ngeen ñëw ñu ànd féete. le 26. le 26 mars cooy. ah le 26 mars. Marie Sarr waaw moom mi nga xam ne jigéen ju mën góor la. Hmm. Birane. Hmm. ma fa ne ak association sénégalais ya fa nekk ñëpp ma leen jigéen ña nekk Allemagne Lausanne Zurich Lyon Marseille ñëpp laay woo. dama bëgg ñu def fa spécial soire boo xam ne. Aïcha sama jigéen. amul Aïcha suma jigéen kar ah baax gato nee na gato bu ne defal. waaw ma bëgg ñoom ñëpp ñu génn. tey coŋali ko rek. ceebu jën ma wàcc ca kaw. ndaga jom ma aj ko ca kaw farwu jar ba. am na ñu dañuy dem de. lëmbal ko ma diigal ko nag. lan. waaw am na nag lion yu ma woo xam nga lion Sénégal dafa am ñu bëgg ambiance. waaw ambiance 100 pour cent lañ. bëgg leen nag def leen ndànk bu leen ma jaxasee ak sénégalais yi. bu muy leer. toog leen rek seetaan vidéo yooyu am na ñoo xam ne nee na dañuy ñëw. force dañuy ñëw damay bañ nag. lëmbal ja li yooyu ñu bëgg a lëmbal ay <laughs> ñu naan leen man maa leen ko. waaw non ak da nga foo la non bi ñëw bañ ñu ne cuwa tax lion yi coupe du monde bi defuñu fi dara. mais bu ñu ñëwee dañu jël VIP toog non non VIP la jël toog bu ñu ñëw dafa nag Matar Ba <laughs> dama ko tudd ndeysaan sama papa ba naan ba ku baax waaw yee kooku day nit ku jig ku ban secret la am sama papa Madaar ba ku jig Sénégal xam nga ban secret la mhm. Fatick la dëgg dëgg la te du fatigué du fatigué ci liggéey waaw du fatigué ci Sénégal dëgg la am na yaa dégg la dëgg te du fatigué ci liggéeyu Sénégal moom liggéeyu Sénégal la ko ñor moo ko ñor sport bi ñëpp ko bëgg këram sax du fa toog waaw Ablaye saw suñu ministre bi nga xam ne Ablaye Sow maire Kaffrine baax tabe yaru gëm liggéey fonk liggéey a dafa am ay nit yoo xam dañoo am valeur. Mhm. barki yonent yàlla ma. rawal yow bul waat. ñi mën a tuddal ci la mbokk Doro Gueye mu baax mi xippi. Doro Gueye ndeysaan. PDG Doro Gueye lu ma nekk ma nga ca. ku baax ku baax ma nekk ma nga ca mën a dimbale waate bëgg waali mm-hmm. fonk waali wallaahi sunu natt bi lu mu ci dajul amul wallaahi ndeysaan mu doon nit ku baax nit ko yàlla baaxal mm-hmm. yàlla na ko yàlla defal jàmm xéppil xool bëgg Macky di ko jàppale étudiants yi kenn jooyatul ndax Doro Gueye mm-hmm. da di nit ku baax lu mu am jox na ko étudiants yi ndangaan lam fay def lam fay def yàlla na ko yàlla defal jàmm Doro Gueye kon PDG ñooñu laa àndal war a dem Genève te ñett ñii a limal Matar Ba. ab mhm. Ablaye Sow Doro Gueye bu ma ànd ak ñoom du ma wét. déedéet yow ànd Sénégal nga àndal. ñoon ñooy Sénégal xale yi jigéen di zone fi nag. Mhm. préparation yi. non dégg naa kay rob yi. ay sax ma ko wax. noo xoolal. nee ma rob yi pare nee na ñoom Bercy. soirée sénégalaise la ñuy def biir Genève. biir Genève waaw Bercy soirée sénégalaise biir Genève sargal jigéen ñi sargal lion yi. ma ci woo ñëpp. waale nag nee naa ko Superman laay woo téléphone boobu ba léegi jotuma Superman benn. parce que Superman bu ma ko jotee damay bàyyi comme que moom mi ngi Gàmbi day dem Gàmbi hmm. waaw nee na ma contactel Superman boo ko jotee mënu ma coppit coppit ñamit na ma sarax ci biir zone ah? te loolu du yomb non du yomb non non Diop nee na day dem Diop ban Diop mel na sa ko nee na ma xaw fu may jaar waaye maa nga ci day dem waaw Ramadan ñëpp mën na leen def leen ndànk nan ko benn mais am nag dafa nekk lu rëy nag ñëpp bëgg a dem ah, Genève xam nga ci biir Genève waaw mais xam nga sargal lion yi sargal jigéenu Genève xam nga dafa loolu dafa nekk lu ndaw amet waaw mais mais xaw ma ku la ko sa staff ku ko xelal mais waaw mais nga pandémie bi dafa ñëw dëgg la ñu tëju ñetti at wallaay waaw ma bëgg nag ñu xappi firi xam ni danoo war a bëggee tey war a bëggee te billaahi incha allah yàlla ñu ci yàlla yóbbu jàmm ñu fekke ko te tal ko mm-hmm. ambiance ba fa nar a am caaya ya fa nar a am ku ko ratee doo man caa tët tët tët caaya a yóbbu ñetti téer yaa ngi may ñawal. tey ba léegi depuis. tey xam nga depuis le 22 ba ñu ngi ñëw non ba léegi ñu ngi ñëw ay caaya. le 22 ba léegi passé ba léegi ñu ngi ñëw ay caaya damaa xamul kañ la ñuy pare nag. cooy ca Genève ba Genève daal. ba pareel bagage yi. na ñëpp pare. Amath fi lañ ko toppee aéroport ba Genève. na ñëpp pare te xam ni xale yi Paris moom. Mhm. nee pare leen xale yi Hollande leen Belgique pare leen Italie pare leen ndax Genève Suisse ñoo am problème. <laughs> xale yi pare yi bëgguñu leen ko bàyyi. déedéet du yomb na tay baas yi génn ma benn yëre olof ma benn benn yëre tubaab na tay baas mhm. yi génn. ndokket yi. xam nga jamono yi bete bete. rob yi taweeku yi yooyu laa bëgg mën a tëb waaw Marrakech yi dinaaw góor ñi. Hmm? ñu tagg yooyu laa soxla. waaw soirée Sénégal lañ wax spécial bu ko defee soirée boobu bu jàllee Lions yi dañuy indi coupe du monde waaye amin waaye Ivoire day jàll ak jàmm. bu jàll bu jàll waaye foofu la ñuy tëjee wax ni lii dañuy andi coupe du monde indi coupe dégg nga yow. waaw Aliou dégg ngeen bu ñu waxee Sadio Mané wax nañ ñëpp li yooyu. ñëpp booy Bamba xam na booy Bamba oh. woo naa booy bu kuul booy bu baax. jantal booy la jantal booy booy Bamba yow bul ñëw toogal Marseille <laughs> dinaa la saafal dinaa dem Grand Dakar ñu saafal la saako gerte. Hmm. waaw gerte ma dem ñaari tali ñu saafal la saako gerte <laughs> Pikine marché njaareem géejawaay dina la saafal saaku gerte. muy ñett ma wàcc marché jox la ko. après continue kon ne fërëf. bu ñëwee caaf ngay wët naa la jox caaf. caaf amet. caaf bamba fenef la ñu tëye toogal. fenef la ñu tëye amet nga tëj fenef la ñu tëjee léegi. waaw kon Genève. Mhm. na ngeen ko préparé. maa mhm. ngi ñëw. le 26. le 26 mars. di yomb na ñëpp préparé. xam nga mars nag weeru jigéen ñi la. jigéen ñi la te yàlla góor lu mu rëy rëy rëy rëy jigéen la tagg ci alxuraan. ndeysaan jigéen la màggal. Mhm. jigéen la suturaal. jigéen la defal lépp yàlla dafa na yonent bi eh neel ñële jigéen ñi ni jàpp di leen dóor ak xas waaw jigéen ñi ni jàpp parce que bu njëkk jigéen dañ ko doon toroxal di ko dóor di rey di xas sunu borom ne yonent bi waxal ñële ne leen ñii ñuy jàpp di leen toroxal jigéen ñi est-ce que buñ ko defoon seeni waajur yu jigéen est-ce que ñoom di leen judd <laughs> ma bëgg nga xam ni bépp doomu aadama buy juddu ci jigéen ngay jaar jigéen ngay jaar. jigéen am jigéen am valeur moo am valeur. ma leen ni sargal biir Genève. nga la waay génn leen xam seen bopp te ñëw ñu defante waay. ba mu ca Genève gala. ca Genève gala. ca Genève gala. ca Ameth Thiouga. woy sama ndey. bëgg naa bëgg naa.